ñetti taxawaay lañ tuddee jamratul uulaa mooy taxawaay bu jëkk jamratul wusta mooy taxawaay bu ca digg ba ca topp jamratul àqaba mooy taxawaay bu mujj yàlla nga yàlla ngeen dem màkk man moom dem naa ba pare dem naa ba pare mooy taxawaay bu mujj bi mu jëlee Ismaayil moom Ibrahim war ko yóbbu rendi ji ko ci la seytaane ñëw yàqkat bi jaar ci Haajara ne ko xam nga fu ana Ibrahim mu ne ko génne na mu ne ko comme àndal mu ne ko doomam Ismaayil mu ne ko xam nga fuñ jëm mu ne ko déedéet mu ne ko yow amoo ful la danga ko ko waroon a laaj <clears throat> baa xam nga ne sa doom lay rendi ji mu ne ko ndokk ba may jur doom sama bopp taxul ni ma sëy-sëy ci baayam di ko defal lam bëgg doom ya ca jurit noonu la mel lu mu ca bëgg na ko def jigéen di am jëkkër jigéen di am jëkkër ay yónne la oto nga ñëw may yónne la oto nga dellu pour lan jabaru jàmbur lu muy seeti jëkkëru jàmbur jëkkëru jàmbur lu muy woo jabaru jàmbur foo ko teg c'est fini da koo gëmul ça c'est fini mënoo koo masqué nee naa la bu ma feebaree ku ma seet ma xew la ñëwoo banaa la du maa la ko wax mu dabi Ibrahim Ismaïl moo ne ci gannaaw baayam mu kobos ko ne ko kaay xam nga fu la sa baay jëmi mu ne ko jéemuma koo xam fa mu jëm rek man falaa jëm xoolal kii amul kilifa jéemu koo xam fa mu jëm laa jëm jigéen du góor du tànnal boppam euh, euh, jabar jigéen du tànnal boppam jëkkër képp ku sa kilifa tànnal jabar lu mu doy waar soo ko téyee rek sang tànnal jëkkër lu mu doy waar boo ko téyee rek sang dina ci jóge mu ne ko sa papa dalaa nara rendi mu ne ko neex na ma de loolu de neex na ma lu neex na ko mu ne ko waaw mu ne ko neex na ma mu ne ko xanaa dangaa dof xamoo dee mu for xeer ne ku ko xër sànni ko ko wan ko ne faalum la jamono jii ku bawul say xarit du ànd ak sa waay sëy du am supporter sëy sa jëkkër yow sa bu problème amee réglé leen ko su mënul régler na ca bàyyi wax ngeen continue waaye sëy boo xam ne ndaw siy déglu xaritam góor gi déglu xaritam say bokk participer am na koo xam ne amul jëkkër daa bëgg nga ñàkk jëkkër ni moom sëriñ kër Si nee na borom càq day moytu borom baatu neen ku am jëkkër day moytu ko amul jëkkër lam lay digal mooy sa sëy tas ngeen yam mu sànn iblis daw mu sànni ko xeer waaye découragé wul mu daw toppaat Ismaïl waxaat mu daqaat ko sànni ko xeer mu taxaw daal découragé wul mu toppaat ko mu mu sànni ko xeer benn xeer bu mujj ba di taxaw bu mujj moo dal ci bëtam bët ba tuuru moo tax patt la Ismaïla ko def patt mooy benn bi bi mu koy dàq na ñetti taxawaay benn bu jëkk bi mooy jamra bu jëkk bi soo demee juróom-ñaari xeer nga koy sànni